kenn du ko lekk kenn rek. léegi léegi léegi ba tey bu nu aussi ci actualité dama xamul nag ba xam gars yi <laughs> ok mbirum mbir mi nga xam ni tey xëy na moo xewoon ci fee place de l'obélisque marche amoon pour la libération de Cheikh Oumar Diagne nga xam ni dafa jotee kenn ku ñuy wax Djibril War mu porté ko plainte ñu jàpp ko tey ay nit génnoon taxaw place de l'obélisque ngir marche pour sa libération. waaw xam nga xam nga nag Sénégal danaa àttiwaat leneen. dafa dafa dafa naqari. maanaam ku ànd ak yow. su fenee sax nga nga dëgg la. ku ànd ak yow bu fenee nga ne dëgg la. ku ànd keneen bu fenee nga ne fen la du noonu. nañ jël fen wi nañ jël fen wi. jëme ko ci kenn rek. ku fen nañ ne da ngay fen. wax dëgg ñu ne da ngaa jeex na. ku fen rek nañ wax da ngaa fen. ku wax dëgg ñu ne wax nga dëgg. loolu mooy mbir waaye nit fen. jël fen wa jëmale ko feneen jël dëgg jëmale ko feneen ndax sa waay la loolu àdduna nañu jël yàlla muy suñu kilifa yàlla di suñu borom yàlla di buur ñu si ko seedeel li ñuy def lu ci jaar yoon ñu seedeel ko yoon ñu seedeel yàlla xam na lépp yàlla xam na lépp gis nga lii ñu koy nëbb ak mënuñu ko nëbb kon nañu fexe ñun ñu xam suñu bopp ku nekk sax ci dëgg ku wàcc dëgg nga nangu ni nekkuma ci dëgg loolu mooy dëgg waaye nag nekkoo ci dëgg ba pare bëgg a saxal sa bopp dëgg du sotti du sotti réew mi nag ah mu nga euh, koo wax mu ngi ci mu ne maa ci ne ci dëgg waaw ma fukki dëgg fu mu am ñaar fukki dëgg fu mu am ñaari dëgg rekk am di nga di nga di nga wax yow ni yaa ko moom wala gi yàlla moom yàlla moom nag mooy dëgg gi mooy dëgg gi waaw léegi ñu déggee ci ni Hmm? <laughs> léegi comme lan lañ ci mën a déggee. waaw li ngeen ci mën a déggee rek mooy ki nekkul ci dëgg. nekku ci dëgg. Jibril waar. su dee moo tooñ nan nangu ni moo tooñ. ki ci des Cheikh Omar Diagne bu nekkee ni moo tooñ na nangu ni moo tooñ ku ci tooñ xam nga ne yaa tooñ. ñoom ñaar ñëpp a ko xam. Cheikh Omar Diagne xam na ko Jibril waar xam na ko. ku tooñ xamal ne yaa tooñ. soo tooñee na nga xam nga avocat. dama mos am benn problème yégoon ngeen ko yéen ñëpp ñu woo ma euh, police centrale ma dem mooy ndeysaan ci euh, ma doon enquête ku baax la ku baax moo ma tegal sa jaay tegal ma yëpp dama duus baa nga ne pour bi ma yegsee li ma njëkk mooy da jël avocat ma ne lu ma koy doyee seetal lu ma koy doyee parce que wóor na ma ne maa ne ci dëgg lu may dee avocat hmm. waaye kuy jël awooka wóoroo waaye ku wóor xam ne li nga ne dëgg la doo jël awoo jamais da ngay sax ci dëgg rek ànd ak yàlla fu la yàlla yemale mu baax fu la yàlla yemale baax na waaye yéen yi baaxul moo tax ñoom ñaar ku ne ci dëgg xam ko ki ci nekkee dëgg xam na ki ci biti bu nekkee dëgg xam na ñi ñi ñi leen di ànd ak ñoom nag di leen jàppale nañu seet yàlla nañu seet yàlla bu fekkee ki ci kaso bee tooñ ñu wax ko ne yaa tooñ bu fekkee ki ci biir tooñ ñu ne ko yaa tooñ loolu mooy mbir mi loolu mooy mbir mi waaye nag ah ma ci àtte nag hmm. du ma ci parce que xaw ma exact nu mu te du ma seetaan du ma déglu man fii rek laay xamee fii rek ci yéen ci yéen rek laay xamee li xew man man yooyu intéressé wu ma tax du ma dem rek damay tàddeel ci yéen rek laa ko xamee man maa ngi dox rek maa ngi dox rek maa ngi dox rek fi ma jëm xam naa ko ñeme naa ko te danaa ci yegg bu neexee yàlla fi ma jëm xam naa ko ñeme naa ko dinaa fa yegg bu neexee yàlla fu ma yem rek baax yegg moom danaa ko def yegg kay danaa ko def ah su ma ci boolee nag xool fii xool fii du ma sotti du sotti du sotti. ayca te tey xëy na bu nu dikkaatee ba léegi ci actualité diggante Sonko ak Adji mu mel na fa ni dossier bi mu ngi avancé am na lu xewaat ci biir muy ki nga xam ni moom moom ci salon bi nga xam ni fa la Ousmane Sonko demoon Adji Sarr daf ko tuumaal foofu bërëb bu ñuy jaayee sa bopp la. te ba tey moom woowu woolu nañ ko déglu ko lu jëm ci wàllu woowu. moom mu ngi loolu rek moom daal ay mbiram daal ku yow daal ni mu ngi loolu gis nga dégg naa sax benn waay mu ne wéy parce que place bu ñuy bu ñuy maasaasee waru faa dem dugg na fi génn na fi dégg naa ko loolu mm-hmm. mais loolu ay wax erreur la gis nga ñun charia la ñuy àtte charia la ñu àtte su fekkee ne Sonko nee na maa ko def àtte nañ ko su ne defuma ko Adji Sarr ne moo ko def ñu ne ko ànd say seede mu ne aw ma seede jeex na procureur jeexal na ci sañu ko àtte billaay bu ko àtte dina sañu ko àtte kii kenn du ko ate waxu ma ne Sonko ne ci dëgg waxu ma ne Adji Sarr ne ci dëgg dama ne ñoom ñaar su Sonko ne maa def jeex na su Adji Sarr ne maa def moo ko def jeex na moom daal ku ko ci tudd ci ñoom jeex na gannaaw nag Sonko nee na man defuma léegi dañuy seet affaire kër kooku affaire benn affaire la ay kër kër kër këram beneen affaire la li ñuy wax kay mooy Sonko ko def wala Sonko defu ko doog indi kër gi kër gi doog a ñëw mais ay kër ko fa dem ak ay kër loo loo ciy waxal dëgg rek waxal dëgg booy wax ci mbir mi wax ci dëgg neel sonko wala nga ne aji saar mu jeex loo ciy ragal mais yow ñeme waa toog fële sa kaw fële naan waaw moom daal euh, moom daal ku dem ci këru bu ñuy maasee ah, wax dëgg yàlla xaraam na xaraam na loolu du wax naan sonko yow li nga def xaraam na ñu jàpp ne xaraam na wala nga ko li nga def dagan na ñu jàpp ne loolu benn affaire la lii mbir mi kay mooy Sonko yegg na ci aji Sarr wala yeggu ci Adji Sarr Sonko ne man de jegewuma ko dama rek te bëri ba loolu tax ñu dama doon maasiw mu dem di maasiw su fekkee laal na ko laalu ko yëpp loolu affaire affaire affaire seen affaire la laalee mu daw affaire am la bu ko laalee mu daw mu am waaye daal de toute façon de toute façon Adji Sarr ak sonn na nit ñi ko àtte mu jeex li ñuy li ñuy taaxeeru ko nañ ko àtte suñu waree teg Sonko ci yoon nañ ko teg ci yoon su waree teg aji saati yoon nañ ko teg aji saati kuñ ci war a teg ci yoon nañ la teg ci yoon ñu maandu ñeenti ñu bokk fu ñu jógee ñeenti ñu ñu ñu daal la ñu bëgg ñu ñëw ñii ñooy seede njaalo njaalo kenn du ko wax ni da yàq der day yàq der nit dëmm la nit dafa njaalo kenn du ko wax ni tënku moo tax eh, eh, moo tax eh, sari indi sari yi ñeenti gor ñeenti ñu maanu ñeenti ñu nekk jullit ñeenti ñu ñëw goo xam ne kenn wanu ko sa morom ñu gisandoo ko loolu fu muy am kenn wanu ko gis fenn waaye li tax ñu indi loolu dañuy bañ ku ko wax nit waaw ku ko wax voilà waaw moom moo war a indi seede ana seede moo war a indi ñeenti seede yu maanu yu nekk jullit mu indi leen su leen indee nag ñooñu la ñoo ko gis jeex na waaye des na parce que kël mir wa di fël film xalati seede hmm. ya day mel ni euh, gënn goo kuur goo dugal ci gënn hmm. kuur goo dugal ci gënn hmm. xam nga loolu wér na dañoo fekk kuur gi ci gënn gi ñu génn gën génn kuur gi noonu lay wel fekk fekkewuñ loolu amul fekkewuñ loolu amul kon kay jeex na man loolu loolu loolu laa lay wax loolu du ma dañ di ko wax du ma dañ di ko wax du ma dañ di moom daal buñ amul seede baaxul buñ amee seede baaxul yàlla yi ñuy bëgg a tuumal Ousmane Sonko dañ naan est-ce que l'islam nangu na massage bu jigéen maase la léegi ba tey amuñu seede loolu laay wax na seede ñëw rek <laughs> seede rek seede rek boo ko l'islam nanguwul Sonko dem na fa lislaam nangoo ko baax na waaye indi leen seede indi leen seede rek mooy wéral ne lii mu def du yoon mais ma tëjee ci koor gi naafile yi nga xam ne ñoo ngi koy amal ci koor gi yi nga xam ne ñoo ngi koy ci koor gi am na ku génn ni naafile yi daganul ku la ko mën a digal bañal te it xëy na dégg nañu ci euh, yéen borom xam-xam ngeen ni koor gi jëf joo ci mën a yiw jëf yiw na ko jëf génn naa fay dagal ku la ko digal bañ waaw moom moom moom lay wax rek waaye moom kenn ko déglu moom kenn déglu kenn déglu loo ci def dagan yiw loo ci def dagan waaw yow julli ay ñaar ay ay di ko def koo koy defal yàlla loolu ñu ne daganul te nit ñi nekk fi di baal nit ñi nekk nekk fi di def lu kenn xamul yooyu nga war a kaas li nga war a kaas mooy lu bon li ñuy def li ñuy def waaye nag lu baax kenn du ko kaas da kaas lu bon li ñuy def waaye lu baax kenn du ko kaas soo doon kaas tey njaalo gi nangam nangam tux yàmbaa gi tux cigarette bi tux pon mi nga wax ko mais yow bu kenn julli ñaaraaka ku loo ko mën a diggal bañal seeta loolu ku la ko digal bañal hmm. moom moom yónent la yàlla la lu muy waxee loolu du yonent du yàlla du dara ci nag mu ngi dugg ci erreur parce que dafa am loo xam ne kenn du ci waa léegi suñu bàyyee naafila yi dem ci leneen nag suñu bàyyee naafila yi dem ci leneen nag bu ñu bi daa yonent bi daawul dugg oto te mu ngi dugg oto yonent bi daawul dugg nu mu tudd euh, saxaar te mu ngi koy dugg yonent bi daaw sol li muy sol te yorul téléphone ti ñu ngi koy def donc kon nag nañu bàyyi loolu te dem ci li yonent bi daan gëléem la daan war bu daan tukki nañ dem ci gëléem yi nañ dem ci gëléem yi war war ko loolu mooy mooy dëgg waaye daal li nga xam ne ñu ngi koy indi ay ay ay rek waaw taxawul fenn nit ñi naafile naafile leen seen naafile yi ko am ñaar rakka naafile ko ko am ñeenti rakka naafile ko ko am juróom ñaar rakka naafile ko ñaar fukki rakk ak juróom-ñaar ñaar fukk ak juróom-ñaar ci inna anzalnaahu foo julee def ko foo julee defal ñaar fukk ak juróom-ñaar soo paree jàng ko ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar yéene ko yéene ko yónent boo ko defee nga xool boo boo boo avancé wul nga xam laa <laughs> ilaa waxtu julli gu daanu foo jullee timis def ko foo julee timis def ko ñaar fukki rakkaa daal moom ak juróom ñaar fukki eh, eh, inna ak juróom boo ko mënoon nga def ñaar fukki juróom-ñaar ak eh, kii xul wala waat xul wala aat mën nga ko man nga def ko bu boobu julli leen ko ku ko julli man maa la ko man du ma maa la wax ne balaa déwén da nga yokk maa la ko wax du lu waxi sànni du waxi caaxaan du waxi tontukee mm-hmm. man wax naa ko bu yàgg loolu ñaar fukki indi inna anzalnaahu ak juróom-ñaar rakka bu ne am ko nga pare jàng ko ñaar fukk ak juróom-ñaar yéene ko yonent bi yéene sa aajo def ko ren nag di leen nga xool <laughs> nga xam nu muy demee day yokk rek yokk ni rek day yokk ni rek gis nga ñii di wax bale leen dañoo tardé ku tardé da koy bàyyi rek waaye nit du def lu baax nga di ko tere surtout naafila naafila lu ñu ciy tere nit waaye lu jóg ñu ne gàmmu ñu ne bidaa màgg ñu ne bidaa ajiboo ñu ne bidaa génte njaasi ñu ne njaasaan ñu ne bidaa moom lu ñëw bidaa kon nag bidaa yaa ngi ci yéen téléphone yi ngeen yore ak oto yi ngeen yore teg leen ko fële wut nag mbaam wala ngeen wut fas wala ngeen wut gëléem mu jeex bidaa du dara li ñuy wax yëpp dañuy wax yow sa bàyyi dee bàyyi fi kër goo xam ne dañ cay naan sàngara baa ñu cay baa ñu cay def lu bon nga tabaxaat kër ga def fa daara alxuraan bi daal la de waaye rafet na. dëgg rafet na. bi la rafet na loolu dara nekk ci lu rafet dara Haji Malick nee na bi daa mu mu mustaxsan dagan na. biddaa boo xam ne dafa rafet dagan na waaye biddaa bu ñaaw baaxul sa bàyyi de nga jël kër ga def fee auberge e waay xale yu jigéen yi góor yu dugg looloo ma ta mais lii lii kay dara nekku ci julli leen ba bëgga a dee fu fu mu timis jotatee rek jàng leen julli leen ñaar ak rakka bu ne naam ñaar fukki inna naaw ak juróom-ñaar nga beneen ñëw nga demaat ko mu ñaar fukk ak juróom-ñaar nga taaye foofu sëlmal jàng ko ñaar fukk ak juróom yéene ko yonent bi yéene sa aajo nga xool ba xam feeg déwén da ngay yokk ba yokkuwaat maa la ko wax. moom de kàddu gu mu jigéen rek mooy demee xel demee sago rek demee xel demee sago xel ak sago rek président Macky Sall xel demee sago rek lu métti métti na daal moom danaa koy dénk lu bëri gis nga réew mi dafa am ñu doy waar ñoo xam ne li ñu lay wax ak li ñu lay wan du benn nit ki dana la wan lii fekk lee moo ne ci moom gannaaw mënoo xam ne ne fii ak fii la ñu xamee nit xel mi xol bi ci mënoo ko xamee nit doo yàlla de gannaaw nag doo yàlla xanaa xamoon nit ak la jege di ànd ak yow guddeeg xamoo ko amuloo ko bés buñ la tëree moo lay njëkk a buñ la tëree moo lay njëkk a reen te la jege sa hmm. sula hmm. guddeeg bëccëg di ree di jooy nangam nangam yow bëgg bamba nii nangam nangam man lu ma la yéene da naa la ci jiitu fekk day fen day fen la mu la yéene bu la ci jiitoo àdduna tukki na deme xel rek na deme sago rek xel ak sago daal moom képp ku koy demee ci mbir mu mën a doon danga ci am ndam waaye booy demee ñàkk xel ñàkk sago mbir moo ko duggee ci réccu réccu baaxul te kilifa du réccu kilifa du dabu mm. kilifa du réccu mm. baaxul dafay war a seet li muy def di seet li muy wax di seet li muy dugg mooy tax ñu xam ni kii way kilifa koo xam ne loo wax du dëgg loo wax rek du dëgg loolu baaxul loolu baaxul euh, Macky Sall leen daal lay defoom mooy dafa gaaw a mer rek day mer de Macky Sall moom day mer waaye bu bàyyi woon mer dana baax xam na xam naa nag deretu ndaw ji la hmm. deretu ndaw jee ne ci moom hmm. ba muy gaaw a mer waaye daal bu bàyyi woon mer di demee xel ak sago hmm. dana baax na hmm. waaye nag heureusement sama sama jigéen baa ngi fa soxna eh. mu ne ko déedéet <laughs> moom daal sama jigéen moom baax na fi hmm. baax na ci côté am na fa lool parce que góor bu amul jabar amoo dara góor bu amul jabar amul dara góor gu amul jabar amoo dara surtout wëndëng ngay àndal góor gu amul jabar amoo dara góor moom dafa war a am jabar xam nga lu tax da jàppale da jàppale Marième fay day jàppale Macky Sall boo ko laajee du ko wéet ji nga jigéen dafa baax ci góor dañu wax ne gannaaw góor goo jigéen jigéen gannaaw góor goo gis mm. jigéen a nga ci góor bu baax bu mm. jigéen na nga ci puus mm. di puus rek mm. ba mu avancé ba sës waaye gannaaw euh, góor goo gis mu baax jigéen na ne ca kanam di def nii di ko arrière ba mu dem ci kanam mais ku baax baax na Mariam Faye baax na ci mag baax na ca lool lool lool dina ko génne ci lu ne lu ne ne ah, loolu nag moo tax muy chance am waaye bu doon moom daaw naa mer de Mm. dañuy mer nag dañuy mer léegi nag mu ne waaye kii gi daal nañ ko def nii nii déet déet déet tàppal ko ba mu bàyyi rek noonu la noonu la parce que boo amee jabar ju baax mm. lu la neex def mm-hmm. soo amee jabar ju baax lu la neex def soo amee jabar ju bon sooy boo moytu looy dugg na nga ko xam mm-hmm. looy dugg rek na ko xam mm-hmm. waaye jabar ju baax lu la neex def lu la neex def Marème Faye dafa baax ci Macky Sall dafa baax ci Macky Sall waaye budul loolu loolu man a meram gii hmm. ah sotti de hmm. waa na ci moom daal waa